والقلم وما يسطرون mbokk yi compagnie Serigne Seck Sénégal C3S moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butiku C3S bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di mbind bi dina door benn ci weeru janvier 2021 war a jeex fan weeri fan ak benn ci weeru janvier 2021 li bees bi nag mooy concours zonal bi ñuy amal amal jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 millions deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépo la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bi ni'mati rabbika bi majnun